leen ko jottali muy feddali kóllëre ak yéen. muy feddali kóllëre ak yéen. di leen wax xelam xelam mu dal. di leen wax xelam mu dal. ak xolam bu sedd. ak xolam bu sedd. ndax liggéey bi taxawul benn yoon. ndax liggéey bi taxawul benn yoon. te liggéey bi taxaw rek. te liggéey bi taxaw rek. mooy li ko gënalut. mooy li ko gënalut. te fi ne liggéey sëñ Tuubaa bi. te fi ne liggéey sëñ Tuubaa bi. du laal suuf. du laal suuf. du taxaw. du taxaw. te xam na seen yitte. te xam na seen yitte. ak seen pasteef. ak seen pasteef. ba liggéey bi taxawul. loolu rek moo sedd xolam. moo dal xelam. moo dal xelam. loolu ci la fas yéene nekk. yéenee nekk. di sant taalibe yëpp ñu bokk ci nekk. ndax loolu mooy li am solo tey. mooy li am solo ëllëg. ndax liggéey Sëñ Tuubaa bi rek lañ am. sëriñ bi liggéey bi rek mooy itteem. ni ngeen ci taxawee nag. ni ngeen ci taxawee nag. ak ni ngeen ciy góorgóorloo. dara ump ko ci. ndax liggéey bu fi ñëw. ndax liggéey bu fi ñëw. te booba nekku fi. te booba lépp. seen teewaay bi itam. seen teewaay bi itam. gën na koo xamal. gën koo xamal. li ci xol yi. li ci xol ak Pastef bi. ak yéene fi yéene ji. yéene ñëpp am. yéene ji ñëpp am. ci ànd ak moom liggéey. moom yéene ji ma am. moom it yéene ji mooy yéene taalibe yëpp njariñ ci sëriñ bi. kon nag yoon waa ngi noonu. kon nag yoon waa ngoogu. nañ ci góorgóorlu. ginnaaw moom bu ko ñaanalee mu yàgg fi te ginnaaw moom bu ko ñaanalee mu yàgg fi te moom it ñun ñëpp. nan tàllal ñaan. li muy yéene. li muy yéene. te di ko ñaanal. di ko ko ñaanal. mu dal nu. mu nu. faju aajo. tey ak ëllëg. ak nu am ngërëmal sëriñ bi. loolu rek la ñu sëriñ bi sàkkul. jërë ngeen jëf. mbooloo mi ne ñëpp tàllal. amiin. ku yor big. dékk ko ku yor butéel dékk ko. na ñëpp tàllal tey wax amiin. amiin amiin Mbakke amiin Mbakke amiin Mbakke amiin Mbakke amiin Mbakke amiin Mbakke amiin Mbakke amiin Mbakke na ñëpp raayoo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 mbokki safinatul amaan Touba Lambaye ñi ngi leen di ziar bu baax a baax a baax di leen balu àq ci coono yi ak xatrat yi ak yitte yi ngeen dagg yépp ngir sëriñ bi di leen ci ñaanal te ci ñaanal suñu bopp njëgalu àddina ko alaxira di sant bu baax a baax a baax mbépp membre boo xamante ni yaa ngi ci biir liggéey bi ñu àndandoo woon jógee fële ca Ndakaaru ak fële ca Lambaay liggéey bi di benn ñu ànd ba ëgsi fii jébbal ko ki nga xamante ni moo fi nekkal Cheikhul Khadim yéen ko àddee ji mu nangu ko ay jëlanu kàddu yi ngërëm ak cant ndax daanaka li ñu ci jot lépp xëy na tey jii suñu teew bi sax moo tax jëmoom ji génn nu ngu àddee yi ndax gëj naa génn kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax di jaajëfal tamit ñi nga xamante ne ñoo toogoon ci kuréel bi yore njàng mi di ñaanal suñu borom du leen kàttan ak wér ba fi ñu bëgg a yeggale liggéey bi yépp ñu àndandoo ko ak ñoom di jaajëfal soxna yi nga xamante ni tamit ñoom lañu àndal jóge fu la ci làmbaay kenn ku ci nekk nekkan ci ay xat-xat waaye nga jaayante ngir jëm sëñ Tuubaa liggéey bi fu mu la toll ak jaral gum la jaral tax nga bàyyi yitte yépp di ñaanal tamit ñi nga xamante ni nii ñoo ñoom ñoo bokkoon liggéey bi suñu borom dogal ñoo am ngànt ba ñoo ñëw lépp lu ñu fi jëlee yàlla na ci suñu borom boole te séddale ñu ko mu diw yiw liggéey bi moom nii rek la ndax uh, ay nit buñ bokkee luñ mënta séddoo muy sëñ Tuubaa ji nga xamante moom lañ bokk kenn ku ci nekk fa ca war ak la nga ca warloo lépp da nga koy jéem a matale sa kéemtalaay kattan la ci des nga bokk ak suñu borom te xam ne ki ñuy liggéeyal moom daanaka am nag fay kon lépp loo xamante ni nit def na ko ci na jàpp ne sëriñ bi moo koy fayal boppam waaye bu mu ci sàkku kenn su suñu xol sedd na lool suñu yaakaar tamit dolliku na ndax daanaka li ñu ko bëggee woon lépp amee nañ ko lu kawe suñu njort ndax lii lépp yaakaar woon nañ dañ ko am waaye nag sëriñ bi nga xamante ne moom la ñuy liggéeyal noo soboo ci moom rek mu nga tooyee noona tooyee noona ci moom kon ñi ngi ñaan ci barke Sëñ Tuubaa mu nangul ñu liggéey bi te fulal nu ko ba bu ñu fi jógee yitte yeeg yéene yi nga xamante ne nii moom lañ fi indaaleeg tawat yi suñu borom saafara ko ba yépp ci kàttanu yàlla bu ñu delloo kenn ku ci nekk jële fi ak yëkkati ko boo xamante ne duutul deltu ginnaaw ñi ngi santaan mbooloo mi yépp di jaajëfal ñëpp di ñaanal ñëpp ci barke Cheikhul Khadim suñu borom dolli ñu tawféex ak taysiir euh, teraangay biir ak yooyu biti ji ban gën a mën a liggéeyal sëriñ bi kon ñu ngi jégalu ci kàddu yi nga xamante yëgg nañ ko liñ bëggoon a wax lépp sax mënuñu koo wax ci biir mbooloo mi waaye suñu yéene foofa ne lii waaye lu ci jub rek ngeen jàpp ne eh, suñu borom moo ko dogal lu ci dëng tamit ngeen xam ne matadi doomu aadama rek waaye dañ yéene woon lépp ëpp na lii kon ñu ngi jaajëfal ñëpp di leen eh, balwaq ci di leen balaq di ñaan suñu borom boole ñu jéggal jërë ngeen jëf macha allah kàddu yi rafet na yow it ñu ngi ñaan suñu borom mu defal la tawféex bu dul saw ba nga eggalee liggéey bi fu kawe ndax ñëpp xam nañ sa yéene ak li ngay daj kon mbokk taalibe yi liggéey baa ngi noonu yàlla na ko sëriñ bi nangu mu mel ni euh, dajale nañ fi àdda ji lu tolloog mille ziyaare ko sëriñ bi boole ko xeeb ko lool waaye mu nangu ko it ñaanal na daara ji yëpp lépp lu ñu fi jëlee yàlla nekk aw yiw te balaa waxtu wi déwén ñu man lu kawe lu ñu man ren ci barke borom Touba ñu ngi leen di ziyaare bu baax kon nag dañuy dugg ci oto yi Euh, jaar suñu mbokk taalibe bu nekk fii soxna Ndey Diouf saalihaat bu ko defee dafa am ay xéewal yu mu fàggaloon waa daara ji ñu jaar foofu xéewlu soog a yiweeku bisimilah kon ñu ngi jaa jëfal ñëpp jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah

سيدنا من قبلنا يا ذا الصراط المستقيم ربنا هدى به يمدنا من قبلنا يا ذا الصراط المستقيم ربنا هدى به يمدنا من قبلنا يا ذا الصراط المستقيم ربنا هدى به يمدنا من قبلنا يا ذا الصراط